beneen bi tax ñu wax toujours ci complot mooy yéen ñëpp dégg ngeen déclaration bi gérante bi def beneen masseuse bi confirmé ko ni moom ay nit la doon waxal ci biti keroog bi ma paree ba génn dafa ne ñoo ñu ñëw leen jël si ma ñu ñëw ànd ak seeni ñaari katkat yu ñuul kukk à 22 heures ci couvre bi yenn ko yóbbu ko vers une destination inconnue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 ilaa yow mi diin fu ñu génnee message boo xam ne man yónnee naa ko ndaw soos ne ko maa ngi ñëw loolu lañ ciy wax pour le moment am na yeneen ak yeneen waaye bi ñu waxtaanee ak avocat yi dañ ñu ne comme ñoom dañoo nekk ci def nañu seen mbir gis ni mbir mi nag dafa mel ni bëri na ay faay ñuy essayer di rectifier kon ñu nit ci suñu défense am na lu bëri loo xam ne doo ko wax parce que dañu permettre ñoom ñu tëb ci loolu kon mbokk yi.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 ci yor nguur lu mu def rek dañ naan incha allah macha allah complot yàgg na fi tentative de liquidation d'adversaire politique yàgg na fi waaye li may wax Macky Sall mooy bi pas du yomb bu soobee yàlla moo tax woote gi may woote ñi nga xam ne ñooy suñu am di jàmm suñuy soppe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 waaye projet soppi réew mi la de manière qualitative mooy lépp loo xam ne jàngoro guñ doon jooy la indépendance ba léegi ñu jële ko fi nag sénégalais bu nekk xam ni projet boobu la comploteurs yi bëgg a faagaagal est-ce que loolu sénégalais yi dinañ ko nangu est-ce que suñuy militant suñuy militantes suñuy sympathisants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 ñu ne kenn du ko laal waaye opposant moom bàkkaar la fii Sénégal bàkkaar la biir Afrique loolu dafa war a jeex persécution contre les opposants dafa war a jeex opposant amoo droit dox amoo droit naan amoo droit lekk foo nekk yaa ngi wëlbatiku loolu dafa war a jeex démocratie du doxee noonu moo tax bii du yomb may wax ni waxtu yi ñu toll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 wala dara jarul leen dara may wax suñuy ndaw suñuy mag suñuy góor suñuy jigéen ne leen caaxaankat yi nga xam ne yàqar ñu réew bi yàqat toog ci nguur ak yàgg ci nguur lu mu leen jaral rekk ñun ñi bëgg a soppi Sénégal bu ñu jaralul lu ko ëpp bu yóbboo ñu ba tootul ay komanteer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 à 11h nañu ñëw uyu ma fas yéene wax Sénégalais yëpp ni duma uyu ji ëllëg parce que ab député munoo ko convoqué en tant que accusé tant que teggi woo kiiraayam muy immunité parlementaire loolu nag boo ko waxee dañ daan parce que sénégalais yi ñenn bokk ay raccourci la ñuy bëgg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 te sénégalais yu baax ak patriote yi ñu ngi fépp comme am nañu firnde ni moom Serigne Bassirou Gueye nee na leen suba bu Ousmane ko ñëwee na ngeen ko jàpp mandat de dépôt immédiat parce que la bëgg mooy fexe ba làq ma ba dootuma mën a wax loolu tax ñu wax tey jàkkaarloog sénégalais yi wax leen suñu version loolee moo tax ñu ne.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 mbokk